ba ci yenn kaay yi. ba ci yenn kaay yi. El Hadji Ousseynou ak El Hadj Ousseynou Ndiaye dalee jàmm ci xibaar yéen gi duñu xamal ne maanaam daal coow rek moo doxoon ci seen diggante waaye mbir yëpp boo moytu nag fa mu naroon a mujjee naroon naa tàng te it naroon naa doy waar lool ci seen diggante

moo taxit kay démb assemblée nationale ba ñuy taxawal li nga xam ne rek moom moo di commission ad hoc ba lool ci mbirum Ousmane Sonko yéene kaay gi di Le Quotidien di ñu xamale mbirum Ousmane Sonko koy jamono ji moo jaxasoo lool ndax ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci kujje gi la ñuy laajte moo di plainte bi nga xam ne rek moo jëm maanaam daal alaxam plainte contre x bi la ñu koy toppee ak li nga xam ne rek moo di Ousmane Sonko maanaam daal mbir yi dafa jaxasoo lool ndax lañ leen jox lañ leen jox x lañ ciy topp tey nag dañu ne woon Ousmane Sonko yéene kaay gi di Le Quotidien di ñu xamale ak lu man di xew daal mbir yi daal ña nga ca procédure ngir xool mbirum Ousmane Sonko moomee fan lay mujj yéene kaay baara dolli ci yéene kaay gi di ñu xamal ne moom Ousmane Sonko li ko njiitu mi Abdoulaye Wade mi fi nekkoon waxoon bu ko defoon lii lépp da ko daal ñi nga xam ne rek ñoo koy fexel demoon na béyeg ci ci laal mbaraanum kii ma Malick Gakou ñamu àndal moom kay xam ne jamono ji loolee duñu ko def ndax jàpp nañ ne Ousmane Sonko jamono ji dañu ko bëgg a fexeel yi Mari Sagna ci yéene kaay gi di ñu xamal ne njiitu mi Macky Sall kay jamono ji na muy mel na daanaka di yóbbu xamal ne ka coow la nag di Ousmane Sonko tey laa leen di wax jàngoro ji nga xamal ne atroce lombaire moo dal Ousmane Sonko Sud ko di taskatu xibaar kaay gi duñu xamal ne moom kay doon nañ ko tëkk di Maimouna Ndour Faye bu 7TV yéene kaay gi duñu xamal ne gannaaw jotaay goo xam ne dañ ko def kañ ca dalaloon di yàq mel ni xeme Ousmane Sonko ci ko benn étudiant wooy tàmbali di ko xupp ne ko yow mii nag dinañ jël sa bakkan. El Hadj Ousseynou Ndiaye. ak El Hadj Ousseynou Ndiaye.